salaamaaleykum mbokk internet yi daleen ak jaamu ci Sen Sport 221 day ñëw ak yéen di gën a ci kayiti xibaar yi bokk na ci mbirum transfert ay xibaar ca bitim réew waaye nag dañuy ñëw ci li nga xam ne nag moo ko jiitu muy fii ci Afrique nga xam ne day lu toll ci juróom-ñaari équipe qualifié nañu ci CAN bi ñu war a amal ni ki déwoon foofu la ca Maroc juróom-ñaari équipe dal nañu jot li nga xam ne mooy seen ticket ngir dem ca CAN boobule lu ko jiitu ñu jox leen résultat match nga xam ne jotoon na xew ci bëccëgu tey bii ci qualification yi ci tënk rek tey nag dafa bëri ponkal xam ne daanu nañu voilà vous ñu ci résultat Soudan dafa daldi dor Ghana 2-0 Lesotho Gabon moko fekk 2 0 Tchad Zambie da koo fekk 1-0 Tanzanie RD Congo Moko fekk 2 0 South Sudan Soudan du Sud Ouganda Moko door 2 1 Malawi Sénégal fekk ko 1-0 Guinée Bissau match nul Mali 0 partout Botswana dal Dor Cap Vert 1 0 Mauritanie Égypte da dorat 1 0 voilà Rwanda mom dal di dóor 2 buts à 1 Niger Angola fekk ko ko 1-0 Sierra Leone dal di Côte d'Ivoire ben bal ci dara Côte d'Ivoire champion d'Afrique tay ji dafa daanu Sierra Leone moko ci dara Congo match nul ak South Africa manam Afrique du Sud 1 bi partout Comor, ak Tunisie Matinil match nul 1 bi partout Central Africa moy Centre Afrique ñi di Maroc ñoo leen dóor 4 buts à 0 Éthiopie mom Guinée Moko ko dal di koy 3 buts à 0 bu ñu xoolee nag ci li nga xam ne mooy équipe yi nga xam ne jot nañu qualifié bokk na ci Burkina Faso bi nga xam ne mooy njëkk a jot tigeem Burkina qualifié na ki ci topp mooy Cameroun Cameroun mooy ci topp moom itam daal dinay qualifié waaye ñii di waa Algérie ñoom itam qualifié nañu RD Congo dal dinay qualifié moom itam Sénégal waxoon na leen ko moom qualifié woon moom itam ci bëccëgu tey bi la Sénégal dal dinay dem ci boobu boobule wala Égypte moom itam dal dinay qualifié tey jile naka noonu ñii waa Angola ñoom itam dal dinañuy qualifié voilà loolu mooy juróom-ñaari dëkk yi nga xam ne jot nañu seen ticket waaye nag ci loolu mu am ci ñoo xam ne mën nañ leen beral loxo ndax dañoo gagné li nga xam ne mooy ñeent match yu ñu joué yëpp dañu ko gagné bokk na ci Algérie moom 12 points la daal di am ci ñeent match yi nga xamante ne joué na ko maanaam lépp la gagné RD Congo moom itam dafa gagné ñeent matsam yépp Angola naka noonu Égypte ak Maroc kon juróomi équipe ñoom ñoo gagné li nga xam ne mooy ñeent match yi nga xamante ne joué nañu ko voilà kon dañuy gis ne 12 points la ñu am sur yi nga xamante ne jamono bi moom lañ doon wuti loolu nekk lu am solo kon lii mooy juróom-ñaari équipe yi nga xam ne gars yi jot nañu qualifié ci kan boobule xam naa yeneen gis des ci li nga xam ne mooy novembre bii di ñëw ci ñaari match yi a qualifié na ci champion d'Afrique bi nga xam ne tey ji dafa ñàkk comme ni na ko ku ngeen fi déggul rek voilà jotagul li nga xam ne mooy aw tikem ci kaan boobule. lu mooy loolu Barcelone moom ki nga xamante ne moom la ñuy wax Dani Olmo nee nañu ñu dina ñëw ci li nga xam ne mooy entraînement collectif ci li nga xamante ne mooy alxemes bi voilà maanaam ni ci ginnaaw suba dina dellu si ci li nga xamante ne mooy entraînement groupe. su ko defee mu waajal li nga xam ne mooy match boobu ñu war am seen digganteeg FC Séville journal ba mu ngi xamal ne day moom sax ñu ngi séentu ne match boobu dina ci mën a jouer lum néew néew ñaar fukki simili Fabrizio Romano moo ko daal di xamle jële ko ci journal bii di AS naka noonu ñii waa waa Bayer Leverkusen seen joueur bi nga xamante ni voilà moom la ñuy wax euh, Florian Wirtz dafa daal di am blessure moom gone gi nga xam ne mën nañu jàpp na ci ñi gën boobu la ñu bokk voilà am ñaar fukki at ak benn dafa am blessure nee nañu ci ankul bi maanaam doojoor wi foofu la daal di am li nga xamante ne mooy ab gaañu gaañu ci match bi ñu doon am seen digganteeg Hollande jamono bi nak jur na re? ndax ñu waa Bayer ko sendal ñu fi ba fi ñuy waxe xamuñu ñaata temps la ko jël manam xamuñu sax kañ lay commencé wat li nga xamanteni moy entraînement yi lool nek lo xamanteni ne la bo xamne neexul ben yon voilà pour Alonso yoyele bu côté Real Madrid mom tey jii xibaar am solo lañu am ndax ki nga xamanteni voilà mom lañu wax David Alaba commencé na li nga xamanteni moy daw mu ngi daw ndank ndank comme fan yii la kay di xibaar ya ngi doon xamal ne kat dafa am ay metti yu mu doon yek ba tax li nga xamanteni kat moy ak delusem ba tey xamaguñu kañ la wara doon nee nañu tey jii commencé na li nga xamante ne mooy di daw moom kooku di David Alaba Thomas Tuchel wala bi nga xamanteni mo doon tàggat Chelsea football club ci at yi weesu voilà yoroon Bayern ni ki daaw rek moom nag jamono bi ne ñu am na déggoo digganteem ak effet bu Angleterre ngir jiital li nga xamante ni mooy équipe nationale bu Angleterre moom Thomas Tuchel jëlee nañ ci taskati xibaar ñuy xamal ne mbir la moo xamante ni saytu nañ ko ba xaatim nañu contrat bi suba daal la ñuy ne di effet bi dinañu def li nga xamante ni mooy conférence de presse ànd cee kooku di Thomas Tuchel ngir dégg maam officialiste lu jëm ci loolu mais xaatim nañu contrat bi bu noppi bu ñu ci Fabrizio Romano mu ñuy xamal ne contrat wu at ak genn wàll la nag at ak genn wàll maanaam tàmbalee ko ci janvier bii nga xamante ne mooy ñëw ci suñu kanam ci atum 2025 ba li nga xamante ne mooy juillet 2026 maanaam bu ñu jógee ci coupe du monde bi kon mel na ni daal contrat ba fa mu yem mooy bu campagne coupe du monde boobu jeexee foofu la yëfi yem su ko defee bu ñu yokk xëy na yokk bu ñuy tàggoo daal di déngu ku ne dem sa yoon bonus bu duun nag nañu mu ngi koy xaar bu fekkente ne fexe na ba gañe li nga xamante ne mooy coupe du monde boobule moom kooku di Thomas Tuchel at ak genn wàll daal maanaam mooy li nga xamante moom la xaatim lii di contrat bi bu ñu sukkandikoo kon ci taskatu xibaar yi janvier bi ci lay commencé li nga xam ne mooy liggéeyam ak équipe nationale bu Angleterre. Cheikh Tidiane Sabaly bi nga xamante international sénégalais la nekk foofu la ci FC Metz. gone tànn moo nekk meilleur li nga xamante ne mooy weeru septembre bi ñu génn nga xamante ni mooy loolu kayiti xibaar yi xamle nañu ko tey jële loolu nekk xibaar bu am solo gone gi daane ci forme de jamono bi ma boot équipe boobu di FC Metz di ca wane jaloor yu ama am solo voilà moom kooku di Cheikh Tidiane Sabaly moo taxit moom la ñu tànn moo nekk joueur bi gën a ràññeeku ci li nga xam ne mooy Ligue 2 française bu ñu sukkandee ko ci taskatu xibaar yi Kylian Mbappé moom tey jii doon nañu àtte digganteem ak ñi nga xamante ñu waa Paris saint bi nga xam ne dañu ko amee li nga xamante ne mooy ay di nga maam koppar maanaam daal salaire yoo xam ne fayaguñu ko ko ak ay

atte woon nañu ko ba noppi sax ba wax ñi di waa Paris Saint-Germain ngir ñu fay li nga xamante ne mooy koppar yi waaye ñoom nag dañoo defoon li nga xam ne mooy appel maanaam voilà ngir ñu saytuwaat ko saytu nañu ko ba dékliwaat nañu leen tey jile te loolu nag ñu nga xam ne day dinañu dégg maam joxe li nga xam ne mooy décision bi le 25 octobre maanaam fii léegi fukki fan ci suñu kanam Manchester United gannaaw bi nga xamé ne mu ngi jankwanté ak ay joueurs yo xam dal dañu gañu rawati rawatina ci côté gauche bi ku ci melni ak Malaysia bi nga xam ne daanaka ñaari at yi amaluñu leen benn njëriñ rawatina malaysia mom man nañu gis né daw footballul ren ji ba tay ji ñu waxé kenn gisagu ko Luke Shaw bu ñëwé tay suba mu gaañuwaat moo tax fi ne ni Manchester United ju gi bëgg signé ki nga xamanté mo lañu wax Alphonso Davies nek fofu la ci Bayern Munich ngir dégg maam lijeenti bir momulé mom nak mu ngi ci atam bu mujj ci contrat am kay xibaar ba xamal né kat bir mi du yombé nonu dakar amna ci équipe yo xam xam ne dèjà ñoo ngi ci woon maanaam équipe bu mel ni Real Madrid kon xëccu lay doon ci diggante ñi nga xamante ni ñooy waa Manchester United ak Real Madrid googu nga xamante jamono bi yitte woon nañu kooku di Alphonso Davies voilà waaye nag comme li na ko waxee mun ci atam bu mujj ba fii ñuy waxee amagul déggoo digganteem ak Bayern Munich ngir yokk li nga xamante ne aju ci contrat boobu lee FC Barcelone moom dañoo bëgg signé ki nga xamante moom bëggoon nañu ko maanaam daal def nañu ay contact seen diggante ak agent am waaye nag ci yooyu jamono ñi di waa Arsenal seen yéene moo doon mu dal fay des saison ren bile woon mu dem dañu ko soxla waaye nag ñi di waa Barça dinañu defi pexe maanaam bu saison bi jeexee ngir jéem ko si ñu yóbbu ko foofule voilà loolu it dal dañ koy jàngat ba tey ci taskatu xibaar yi moo ngi noonu gars looloo fi gënoon fees way di topp Sen